أعوذ بالله من شر حاسد منه سبك وسريت من شر جمرك أعوذ بك من شر شيطان أعوذ بك رب أن يحضرون فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتاه وهب لي وارزقني كن أنا ديخي أسل عاجلا بالبشر محمد حتى أقيم لدين الله أركانا يسير جوعي لتوبة واحمني وقني أثر وراه قلت جب لي سما كان لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد مشكب أنا أجب سلبت من حاس أدي محمد تلقى asalaamaaleykum alaykum wa rahmatullahi taala barakaatu di di di siyaare ñëpp rek waa fay du du waa fay du xan yil moox nii waa mu faatihul bishri wakaana xaqana ñëpp rek ñi nga xamante ne daal ñoo aju ci fay du fay du akaabir saalihiin muy woote ba nag waxuma mu ak mbootaay de incha allah nos gi moom danañ ko nosaat ñu ngi sax ba fay fay dul xam ni moo nii moom yoru liggéey bi dëgg waaw nga xam ne moom moom moom mooy samp bu mag bi nga xamante ne mashron bi moom moo koy moo koy téeñoo yanu ko yàlla ko ci yàlla dimbale ba ni tukki ndax li liggéey bu bu mag la fay du akaabir saalihiin waa ji kii baax na mu tuuti kii ñëwoon démb inspecteur bi kii baax boo bokkoon ci ci liggéey bi démb bi kii ba waaye waaw day wax lu am solo damaa yónni di gët fan yee di sant rek daal ne li ma doon digg ci tasawuf kat jottu ma woon ne man de mën naa am te man maa ngi ko yëg waaw xam nga kon fuy du bàngoog waaw waaw ma ma ngay war a ngaan fépp kon. yàlla nañ ko jëriñoo kon kon li ñu li ñuy bëgg a waxtaane mooy jigéen ñi ñoo bëgg a ñooy laaj ñu waxtaane leen jigéen ci tasawuf lu méttee méttee la moom maanaam loolu moom néexut moom du du du lu neex du nangam ak lu naqari dong la te jigéen joo xam ne dangaa walanteeru soxna pend bu yo yuusi suñu taa naa ko yuusi mur yi datahu pend bu yo mur loolu yombut mooy ab walanteer koo xam ne daa walanteeru nekkat nangam du moo ko amul du ma dëpp na ko Cheikh Fall nga xam ne Cheikh bii ñu ngi koy barkeeloo loolu ci moom xam naa bu buutul ñu jàng moom sax ay ay ay bokki Baay Faal bi ne ne foofu xam naa mën naa ñooma ñaan fukki fan yi sëñ Tuubaa gis dafa daje woon ak sëñ bi waxtaan waxtaan ci jigéen ci tasawuf mën ngaa mën ngaa tàmbalee ci serafal ñi ko suñu Basiru nekk la ci mi naan ba mu ñëwee ci sëñ bi ne ko man dey kenn yëkkatiwu moom ku dul sëriñ boo xam ne bu ma ne ko jàkk leer gi yàlla def ci moom dana ma faral ñitteem nga nga xam ne du ma gis ayib man ne ko kooku de su ma day wutoon ak moom jamono xanaa rek bàmmeelam rek laa gis sama yitte dana ma may li ma bëgg ci moom suñ bi ne ko yow xanaa kon dangaa nirug man yitte kon xanaa kon man day bu doon fikkuma fi kenn saa salama fikku fikkuma ko fi waaye biddiw yi ñu ne moom la daa xool suuf si la la dox rek su ma yittee dana mën a àgg ci moom xam nga safal moom ba ba mel wax ba mel boo la gis ko sëñ bi di ko mën suuf si ak asamaan si daal léegi ne ko ne ko nag na nga na nga woo ko suuf woo ko suuf yittee bool soxla fi man am mbaar mu mu la yiir wala ak njaboot ah laxasul de kooku mooy volontaire xadul iradati bi xaw di saada sëñ bi nee na dëgg dëgg définition bi ñuy jox volontariat mooy kat koo xam ne daa dogg ne lim bëgg du ko bu ko amul du dil siwaat ci ci niti ga xadul iradati bi xaw di saada tarkul murid yi ma alayhi alaada kër ak nangam ak soxna yëpp aada la da nga koy baax su ma rujuxoo ilal moxtaar yi boo demee di sëmb kër te àggoo ci ci yàlla loolu jàpp ko ne da ngaa génn ci diine kooku sëñ bi kooku dogu googu sëñ bi te kat Serfal moom kat bu bu bu yaakaar ne daa ko mu dara de bi bi muy ñëw maanaam bi muy ñëw sa sa sëñ Adama Guèye mu mu mu moo baax ma sëñ sëñ Adama Guèye la sëñ Tuubaa yónni yónni jox jox ko ab kaala kaala jox ko jox ko kaala mu gàlloo ko seerafaal xetu Sëñ Tuubaa xeeñ ko ci kaala yi moom nag da- da- da- daa jaawale jàpp ne Sëñ Adama Guèye ki muy wut ndekete kaala gi tax mu war a jébbalu ci ci moom ba mu dikkee nuyoo xam nga naa booba ab taalibe bi bu àndee ko ab sëriñam du nuyu kilifa gi moom protocole bi moom sëriñ bi ay dàllam ak ibrasam la la koy aar loolu te gi ñu am solo la léegi da ngay ànd ak sa sab donga muy dem di siyaare ji sa ngay siyaare sab sëriñ muy bonte yow benn waaye da- dafay ñëw ne ma ñu waxtaan ne ma day université bi sax day jox na ci ma diir ko ko jox suy mun taxaa ak kuy sëb sëriñ mu ne diw mu ne ko tax joxoo ko ko mu ne teg mu ne ko ah xanaa kon da ngaa bëgg si mun taxaa xàmme la mu ne ah waaw mu ne ko mu ne mu ne ko kon loola nga nga ci am kon seer mi gi moom daal di dugg sëñ bi laaj ko ko àndal mu ne ko kenn maanaam kii am ab donga la moom anuma moom maanaam maanaam kooku bëgg ci ñu war a ñëw protocole bi sëñ bi laajat ko andu kenn nga am naa am naa ko su ak ngóor soo xam ne dama tase woon ci moom moom ci yoon yi mu jublu ci man sëñ bi ne ko na agsi mu ne agsi mu nuyoo sëñ bi ne ko ne ko ah xobu xël xajut ci gim ñu dem sa waa ji sa waa ji xam nga pa- Pastef bi kawe kooku na kooku ndax da da nga ko mën a attan si si si si Adama ma- ma- ne ko yow mi attan ñëpp yow waaw ceefal da daal di agsi si diwaan Pastef ba kawe da da daraay wax ne sa- sama bàyyi Pastef am ba sëñ Bamba képp ko mu rëb sëñ waaw moom képp- li ma xamante woon ci Pastef moom xaw ma jamonoom koo xam ne mën nga ko sëriñ waaw kooku moom ko sëriñ Tuubaa rek waaw moo moo moo moo moo ko matoon daal ab ab géeguwaay fu muy taxaw Serap Serapal kon moom daal di daal di doxe noonu xam nga kon moom xamantara maanaam kaala gi rek kañ nu ñu ni ci sëñ bi ba jàpp ne sax borom kaala gi ki mooy sëñ bi léegi nag kon jigéen ne day wut yàlla xam nga soxna Penda bu sëñ bi ne ne woon na ko na nga topp sa jëkkër ci saw ji waaye da- da- da- dajaa wax lu am solo saw ju ki taq yi toppal sa ndigalul boroom kër bu ragal yàlla bi wu- wu- wut boroom kër yëpp de sëñ bi dana dana wut yàlla nga di ko wut ah doom ji baax na wax nga di ko wut foo xam ne baaxoon nañ ko fa wuute te mu am fa xam nga nañ ko fa baaxoo wuute ba noppi te amu ko ndax léegi génn fa dem ah kon fekkoon sa laaj ba ah kon léegi fi ngay wute yàlla yow yow jigéen ji ñu ko fa daa wutee ba noppi nag it mu am fa bitig bu doon jaay suukar te jaayatu ko dara jaay suukar képp du du tax mu mu am suukar tey wala wala asa ji nana leer na suukar am na fa tey jigéen buñ demee ca kaw sayyidatuna xadijatu bintu xooylit mooy jigéen ji nga xam ne mooy référence u l'islam xadijatu mu tedd ma radiyallahu taala anha salaay salaam ab jirim la yorut dara di as ngóor suy dox nooy rek xam naa sax day xoy ndax booba boo ñàkkee wuy jur ba noppi sa bàyyi tax bi teel a dem da da ngay xoy ñu lay yërëm Xadija moom di ko xool rek ba ne ko wax te te ngaa ñëw ma ma ma boole ak sama sama xale bi ngeen di dem di yaxantu boo leen yaxantoo boo leen dikkee bénéfice fii ba ñu bokk ko mu ne waaw booba xew na ci arab yi Xadija daal daal ne ne xale bi mu àndal nang ma ko xool seetlu ma ko buñ jaayee ba digg bëccëg salaay salaam a dem ci ak garab mbooloo mi di ne fee di kaxaloo day bëri ci garab ne woon na ko man man nga cee jëfandiku lekk ak naan day cee jëfandiku tuuti lu yenu maanaa bu dikkee sa Xadija laaj xale bi ne ko waaw moom nu nu Muhammad def ne ko ah comme de bu ñu demee bu ñu liggéeyee ba liggéey ba ñëpp ne ko gorom moom day beru ci ak garab bàyyi nit ñee fee gis naa it li muy jënd it day jënd lu lu lu yawamaay rek li li muy lekk ka naan Xadija kon daal ah kon kon kon kooku lay wër salaay salaam Xadija ko mag fuuf ba noppi Xadija bokk ci tànnii fi Quraysh yi prince yi di ko dabu si nanguwulee na wuyu ba noppi di wuyu yittim bi nga xam ne faqiir la ba noppi mu xaw na koo mën a jur kon Khadija gis ba daa sori Khadija daal di daal di ko jël uuf ko maanaam léegi Khadija moom moo takk saa si la ndax saa si la ma ñi mut a dem dem di la bat Khadija moom taar ba ba taaru am xaalis diggu ci biir Quraysh kooku moom saa si la ma ñëw ñëwoo ko la bat ndax salaay salaam booba kenn kenn xamu ko waaye Xadija moom xam na ko Xadija daal di daal di koy jël nga ne moom moo ko jël uuf ko salaay salaam uuf ko teraanga ji nga xam ne juddoo na ci mooy ne salaay salaam ak sëtam yëpp Xadija ay seen maam buñ ne Chérif rek Xadija ay sa maam Fatimatu mooy sa maam Xadija ay ndeyam lu yéem a yéeme la soxna Aïcha mas nay kaf ak salaay salaam salaay salaam daa fonk Xadija ba bis seen na soxna soo xam ne xaritu Xadija la woon wala réem la ñëw fa nag ci salaay salaam ci ci fekk ko ci pinc bi de salaay salaam manto bi mu bi bi mu sol moom moom la summi lalaata ko ay sa dafa fiiram daa tàmbali ah waaye loolu lu tax nga ne ko la la lalal sa sa manta bi mu ne ko kooku wële réew ci Xadija la mu ne ko waaye garab gu ñu mës a lekk ak gu ñu mës a lekk nag bu ci gën ma ma ngi koy ma ma ma ma koy kàll Xadija mas naa dem kër ba am fay doom soog a ñëw ci yent bi Aysa Aysa nag moom ak xéeg la njegemaar lañ jox ko sa sa ma tàng tàng nag moom moom du du yamale Xadija keneen moom ndax Xadija kon moom moo doon nay yonti masilaam yiir ko ci alalam nga lippam kooku kon moom Xadija kon moom xel ma gudd na gis ba neex na boo demee ca ku mel ne rabi al adawiya yët soxna Penda bu yu sun maam jooju soxna Penda Buyo sëñ bi booba kenn kenn xamu ko soxna Penda Buyo xam ko moom ne ko damaa bëggoon de ñu jox la soxna soxna Aminta Lo soxna Aminta Lo moo moo fi jëkk soxna aw aw buso moom lañ ko jox di jëkk a jox waaye so soxna aw aw buso di jëkk ci kër gi waaye soxna Aminta Lo soxna Penda Buyo ne ko dama la bëggoon a jox sa sa sa sama doomi ndey yi soxna Penda Buyo ak soxna Aminta Lo daal di ànd ne ko. lu ñu la laaj joxe ko boo noppee dañ la koy dalawaat sëñ bi daal di kii sama bàyyi nee na sëñ am sëru jaxate ànd nag sama ba ànd nag suñu mbokk ma dina dem sëñ am sëru jaxate ñu koy siyaare yi sëñ am sëru jaxate di leen nettali loola ne ko takkaay yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa joxoon soxna Aminta Lo mu ne ko suñ mu ne mu ne ba xabaan moo jëndi woon takkaaya xaay kon de xanaa kon si mu ne ba xabaan kon bàyyil kon mu ne ko soxna Aminta Lo keroog bi mu wàccee ci kër gi daa jël takkaaya te- teg ko ci kaalaam ràmb si mu jox ko boo boo booba bu jigéen dee wàcc ci kër li ñu wax jëbul tey jii ni naan jigéen ñi jëbulu borom kër bi da- day toog ci ëtt bi soxna yu mag yi yi nga xam ne ñu ñoo ne ci koñ ci koñ bi ñu ne ci ginnaawam jigéen ji raam ñoo ne ko daal maa ngi jëbulu maa ngi tàmbali liggéey bi so soxna Aminta soxna Aminta loolu daal koy jox takkaay sëñ bi sëñ bi ne ko loo loo ci jublu mu ne ko mu mu ne ko waaw dama koy tàmbalee liggéey xam nga kon li li li sëñ Tuubaa cadeau ñu wax cadeau cadeau ci Tuubaa bi ni ñu fonk cadeau cadeau mooy ñu nga nga demoon ci benn entreprise jënd fa dara lu bëree bëri ñu naan yooyu rek sama sama sama client ñu ñu daal di jël dara. ne la cadeau la cadeau boobu nag da nga ko war a denc ci fonk ko ndax ndax waa ji waa ji dala ko jox de ngir njëkk ngir souvenir boo ko xoolee sa xel dem ci moom waaye koy jox ko- kon léegi cadeau la kon sëñ bi denc ko sëñ bi sànq ko de sëñ Tuubaa sëñ Cerno Galagal nee na sëñ bi ñu ñu dikk njëriñ woo woo Cheikh Moussa nettaliwaat ko xisam daal ne ko indil ma gaal gee mu indi gaal ga ñu ubbi fekk ca boyet ba da ko am nañu tara boyetu or kees la doon ko rafet nii goo xam ne ay bu njëkk ci la ngay def jigéen ñi ci la ñuy def takkaay ñu tudde ko boyetu or nga daa wax ñu ubbi ko muy takkaay sëñ bi ne ko takkaay yii moom la ma sa ndey joxoon ma ne xool sëñ Tuubaa ni mu tedde kado bi ni tubaab yi wax kado ni mu ko xamee si ko de maanaam sëñ tubaab jaar na ci ab diggante soxla woon lool ab junni ab téeméer kado bi ne fi mu mën koo jaay am am ko jaay defu ko da koo denc sëñ tubaab ni mu diiñee dafa tedd daal tedd ku tedd mooy koo xam ne da ngay xam lu ne ak xam maanaam kado bii wari su ko jaay wari su ko wàcc ko dafay war a ne fi mu fi mu toll maanaam bu doon sax sëñ tubaab xelam moom moo sar na kado bi tey mën nga mën nga ko fekk ci am musée waaye xam naa xel moomu mën naa am ñetti des duñ ko am kon soxna Aminta Lo mi ngoog su su soxna aw Bousso sëñ Bousso be wax ne sëñ bi kat dama laa bëgg a jox kenn kër ga kenn néew ko ni ko waaw waaye man de dama yuru dara sëñ bi ni ko man yuruma dara waaye mu ne ko ah waaw mu koy aw Bousso mu ngi fi. daa demoon kër moom sax waaye mën naa la ko jox mu ne ko mu ne ko ah mu ne ko man kat yuruma dara ah ne ko kat pend bu kat ne woon na am na am na ku ku ma ku ma bëgg a bëgg a jox doomi doomi ndeyam ju ju ma bëgg a jox mu ne ko mu mu ne mu ne ko déedéet du ci yàq dara bu dikkee bu dikkee it di aaw ba waaw lii moom dama koy def rek moom kee moom bu ñu ko defee it bu dikkee mu mu mu njiit lii dé dégg nga barke wax je ah maanaam Cheikh Moustapha ba soxna Aminta Lo moo fekk soxna Awa Bousso ay weer waaye soxna Cheikh Moustapha taw bi di di daal dikk soxna soxna Awa Bousso la la lañ xasante xas xas ma jigéen ña xamoon dara ñañ yaroon ci dara ñañ xamaloon dara ñoo ko daa def dikk ñu ne kat maam xarit daal dikk fekk sooda ci kër gi ñu ne xas xas loo xas xas loo mooy ah sooda de yoo laa fekk ci kër gi bu dee maam xarit dañ koo yar ci xamal ko dara ñu ko fi indi jàpp ne dara fi ne gëmloo ko ne ko dara fi ne mu gëm ko mu ne kon dama koy wuti bu dikkee ne sooda ah yow de yaay sama mbokam dara jaama ma fi jiitu soo la ne ko waaw yow sax de li ma yéene woon ci sama kilifa gi te mënuma ko boo dikkee dimbale ko ci soxna aw bu son loolu la wax soxna Aminta Lo waaw ni ko ah sa sa sa li ma ci yéene woon mënuma ko kon boo dikkee dimbale ko ci da nga dégg so soxna soxna Anta Ndiaye Mbacke bañ si Anta Gaawaan ku la tudd soxna Anta Ndiaye Mbacke daa sëy si ci kër ga ab diir te amul bant bu daal di ne sëñ Mor Anta Sali fii de kër gi dama fay yaakaar dara dama bëggoon nag mu bañ a génn bokk gi kon dama la bëgg a wutal keneen képp ku ñëw ci kër ga fekk ko fa soxna Anta Ndiaye Mbacke moo la fa andi ah moom si ànd sëñ bi nag moom si ànd ndeyam ndaanan la moo fa andi ñëpp nee na fi amul doom li mu fi yaakaar ba tax mu ñu nekk fi daal xam gis na ne daraa ngi fi loolu nag daa bañ mu génn bokk bi mu indi maam jaara soxna corom maa roosa ak ak ak ak soxna Fati Isa soxna Fati Isa mu ku ma def tudd soxna Fati Isa ma nga jóge kokki moom ànd ko gàngooram yor alal su nu nga waxte maam jaara moom di ëpp tukulóor jolof la jóge misaal aada ja jolof la jóge moom moom moom dëkkul fii amu fi ay mbokk yorul dara soxna Fati Isa di ko dimbale dimbale dimbale gi ci gi ci gën a foor mooy am doom jox ko ko jox ko sa jox ko sa doom maam Thierno mu jébbal ko sëñ bi sëñ bi am borob téere boo xam ne ñaari téere yu ju ko am naa lebaloon ba déwén sëñ bi wër wër mënut am lu mu ko fayee soxna Faati Isa moo ko fay moo ci def fay ko oh kooku mbër la sëñ bi de te tey xool soxna Fati Isa am nawleem soxna jaara ci kër gi doomam la doomam di liggéeyal soxna Fati Isa di liggéeyal ba tey wujjam woowu dana am ko lu mat a tudd yi moom it suñ Cheikh Bombal lii moom suñ mbokk Madina mii bàyyi moo damay nettali ne ma lu am solo ndayam soxna Aminta Mbàkke doomi suñu Moodu Maamun moom Daaru Salaam su sëñ bi booba kër ga neexul moom ñee naa na suñ wër maamun di ko yónnee weer wu jot saakub ceeb booba ceeb nee na yombul nee na bu dikkee soxna Aminta Mbàkke ci digg kër gi ci digg ëtt bi fa la koy teg daal di ne soxna yi soxna Fatou booba moo fa jiitu sur maam ja nday soxna Bintu soxna soxna Xadi Sàll ñooñu ni leen yéen ni leen séddale leen ko yàlla koy séddale ñëpp yam ci te su ko neexoon duul ko néegam di togg ceeb gaa yi duñ ko man moo tax bàyyi ba ture bàyyi ma daan góor góor gi ba ture dara wax naan ah Cheikh mii kat moom mënu ta ñàkk bari ceeb ndeye ma tax te bu xe- lu am njëriñ la xam nga kon yéen maa ngi wax de te soo de yéen jigéen ñi ah maanaam pratique bi lay wax théorie bi jot wax pratique bi lay wax boo dikkee ca ca kaw yéegal ca kaw ñi ñi ñi mooy nite ñi man mën ngaa wàcc sax dikkaat ci maanaam léegi soxna may mun a Kubra soxna may mun a Kubra joxoon nañ ko fi si sëñ Darou Assane Ndiaye bi ko ko joxee sama bàyyi nee na bi bisu ngan gi bi wàcc ci guddi gi suñ dara Ousmane Ndiaye daa ñëw permis def ko nii ci biti daal di di ne ko fasal suba koor bisu ngan gi soxna si daa woor moo ko suñ dara Ousmane Ndiaye sante ko ne ne ko fasal koor sante ko yàlla ku ku mel ne si si si suñ dara Ousmane Ndiaye xam nga kooku kàngam la ku yàlla boole boole ak moom kooku war ngaa sant yow sant sant ko yàlla nga nga xam ne moom sëñ bi ngan gi moom maanaam seet biir moom daa wor borom kër bi wor ñoom ngan gi de xaw ma du ko doon jaayeen ngan jaay dafay kat moom kon soo demee ca soxna moomi ba tey kam yu sell ja mujj gi sax sëñ bi sëñ blaat waxoon na ko ne ko da koo bëgg wutal borom kër mujj gi mujj gi mujj yor borom kër mu ne ko mu mu ne ko li may toggoo ci jaamu yàlla mënuma ko booleeg ak borom kër. soxna moom it daal mel ne soxna moom jëmm ji moom sëñ Tuubaa la moom mujj na baylaat sol baylaat di kaalawoo ni muy kaalawoo yorub kaamil kii man la moom sëñ bi ñanga ñang du lekk miskit miskit du mu dëgër mii lay def ci poos yi ne ne ci dara bi bu demee bu yàgg mu jël aw miskit seex téye ko ba mu ba mu seexee mu ne um ma ma ma ci ko dugal waaw mooy moom moom dafa nitoon moom moom daa dafa li ñuy tuddee almustakirina dafa taya ñam so so soxna su gaawaan moom nu la mel de ta- taya ñam demoon na kër ba am fa ñaar waaye mel na ne ñi- ñi- ñitewut amoon na sa bajan diñ ko joxoon mu faatoo di di di nga ko tuddee woon daal gaawaan mu faatoo ñu ñu ñu wax ko mu mu daal di ñëw ne ko day faatu na mu daal di ñëw ne ana fu mu ne ñëw ñëw ci néeg bi mu dugg daal di laaj ab ab këll kalamba yooyu def ci ndox jël ab yaram def ci jël ko sol ko ko ba muy génn daa jàpp ci loxo bi muy dox kooku ndana la waaye nag ginnaaw ba s- sëñ bi sëñ bi yónnee fa ne ne ne ko ci Aïcha bo bo bo ba remetee ba suba di di diggante ak dogalam ba bul ca jëm dara
est-ce que
kooku xam nga kooku dafa kawe moom. kawe gi sax dëgg fi muy feeñe mooy am ñaari doom yu jigéen la am da ko yàlla jox boobu. sëñ Aliou Gadiaga mu dajeeg moom dama xamul dama xamul ku ci fekk morom ja sëñ Aliou Gadiaga mu dikkoon njëriñ waaye sëñ Xadim Gadiaga moom moomee ca ca ca saam bu daal di di di ne së së sëñ Aliou de man am naa yitte joo xam ne soxla soo xam ne doomi Sëñ Tuubaa ju ma ju ma ko wax mu wax rek ba dem sëñ Aliou ne ko bu bu may ko su ma ko xamee taman ca dara ni ko yàlla dama natoo ñaari doom. ak bëgg yàlla ma xam ne loolu mënut a daje ci ci ci xol dama bëgg sa sa sëñ Bamba yóbbul ma leen ajana ñaari doom képp la am de bëgg bëgg bëgg ñu dem batax seelu ga ga ne ko bu bu bu ma ci man dara ñetti weer la am ñëpp de dem ajana keroog bi bi bisub dëj ba day xaqataay ca ca kaw naan dañoo bëggoon a dox seen sama diggante liggéey bi sa sëñ Bamba yó- yó- yóbbul ma leen àjjana foofu foofu ak njàngat mu am solo ba may ndaw nekk ca daara ja dégg ñu naan sala salama Ibrahima doom ja ba mu nelawee dara njooy ma ne loolu daal may may may xalaat ne waaw loolu nu ma nekk sala salama xanaa kon daawul bëri kon ba ba ba xam Ibrahima fi fi fa mu jëm a gën fi fi fi mu jógee addis bi moom sama xel xamu ko woon. waaw soxna asugaan mii di xaqataay ci ci ci bisub dëjëm doom yooyu ko yàlla joxoon te moo sabab lu dem nga te di dongas dongas dongas dongas dongas salaay salaam salaay salaam ma kon mën naa ne foofu fii soxna asugaan nefee yéru mana man fekke naa ca dara man loo xam ne man maa ko dund fekke ko si mën bay siisee doom ju jigéen nelaw bañ ko dencee ba ñëw ñëw ci kër gi daara ja si moo di di xaqataay ci kaw naan na na na- nañ sant bi bi bi bi ko yàlla yóbboo ba no fi fekk naa ko sëñ Mor moom mais di di di xaxtay salaay salaam may jooy boobu addis wér moom ba ma ko diggee ba tey bisuma ko gëm te te bi ma bi ma diggee soxna sugaan mii fekk sëñ sëñ Mor Mbay Si laa xam ne mënut a nekk dëgg kon dégg nga sëñ Tuubaa ci moom sari mu ne awliyaa yi ñooy adratu tasxiix li diini la fi tollu addis bi li ma xam ci ci ñaari ñii moo ma koy weddi la donte ne man sama xol weddi woon na ko démb kon kon so so soxna sugaan kon mi nga nga xam ne kon moom moom nag moom moom moom néexu taroy moom daa dafa tàñañal daana wax naan ni ni nga wutoon këram nga am courant ndax dane moom day gis guddi am na fi nan nawet boo xam ne dafa déy yàgg lool tawut ndekete kat soxna si di waxtaan ah waaw waaw moom de saa bu kii ne rek ma génne téere sëñ bi teg ko ci biti téere yi di génn ci biti waaw kii ma naa saay si si si si si si si si si si dégg ko daal di indi nangam yu bëri bëri bërigo yi ciment ak nangam indi ko tabaxal ko ko waaw waaw waaw mu mu mu mu ne moom daal moom néeg bi bu bu bu ko defaru du taw bu xiinee rek ma ma gën a téere ji bi ndeysaan ndeysaan gis nga de gis gis gis so- soxna may moo la ko bran sama babi de nee na ma da- da- dara defar cere ay cere di ko jaay boo xam ne sax boobu sax jamonoy colon ya mu leen makka ku ku sax dem makka ak militaire yi soxna si moo leen daa ja- jaay cere nee na ñu defar cere yi weer ko xiin xiin wi xiin wi daal di kii ñu ko ah soxna si daal mel ne semence dafa xiin de mu ne kon nañ ko weri léegi ah ba leen ko ma ba bapam njaag sëñ Tuubaa xiin wa daal di wëri xam nga kuy def dara nag am dara waaye nag day fekk nga bëggoon dara ba dara jaral la wut ko kon am ko yoon mën a sa sa- sama bàyyi da dane boo ne nen ne yàlla la dama bëgg nangam mu ne la dogal ma lay defal la su su morom yi defut ma ne waaw ndax buñ la ko bu bu la ko joxee duñ ko mën a wax dara ma ne fi ñu toll nii boo ne woon ci kër gi yaa ak say morom ne yàlla dama bëgg nangam dama bëgg junni dama bëgg million yàlla ne ah waaye waaye do- dogal moo lay nga daal di génn taxaw ci naaj bi gars yi waaye ko waay góor njaay mi moom lu mu taxaw ci naaj bi na ñëw ci kër gi nga def sëcc ci yow taxaw yàlla yebal waay joo xam ne dane ko ka ka nga fekk ca naaj wa joxal ma ko million kon day mel ne kon baaxoo wuñu di ko jox ki ki ne ci kër gi kon yàlla dogal moo moo lay inda nurool laa mag ñi ne su soo ma su ma dogaleew lay yan suur ku ma dimbali leen sabab yi boo ci jaaree li may joxe ci sabab yi laa koy jaaree waaye nag léeg-léeg nag ma jaarale ko ci lu sabab inna laaha yarzuqu man yashaa'u bi xayri xisaab kon kon kon tey delloo leen ca Mariama mu jëkk ma nag soog a ñëw ci sunu Mariama mi maam jaara Mariama mu jëkk ma ndey Seydina Isa alayhi salaam nu mu dundee woon nu nu nu ko yàlla tarbiya ndeyam imraatu imran yàlla tudd turo ku sell daa baaxoo woon jàkka ji ji ji naasira moom la baaxoo di ko bale kay di ngeen lool di- di bale jàkka ne yàlla man de bëggoon naa daal doom ju góor joo xam ne dana am kàttan nu ma dimbale ci liggéey bi xam naa daal da caa xaw a néew doole it nii na satu lakka maa fi bët ni mu xararaam daal di daal di ëmb ah yàlla de man day yii yéene na man daal yéene naa la li li sama biir ba mu daal daal di ñaan au niveau onsa bi ko suy tamit sal bi maanaam léegi foofu kon léegi soxna su soxna su jàng diine ba xam ne bu ëmbee da ko war a sange ba ba jinne yi du- duñ ko yàq day musóoru mag ñi nee ñu jigéen bu ëmbee du musóoru jinne yi dañuy tagg ci bopp bi ëmb ba mën naa yàqu ba bañ di sàgganu di di di di di di di woddu awram di di di génn mag ñi ne jinne yi mën nañoo rocc doom ja dugal fa keneen ko ko ko ni ci de Ibra Ibrahima Toy Ibrahima ngi gis nga ni mu selle di sangewu yàlla ne nga fa taqabbalahaa rabbuhaa bi qabuulin hasan yàlla yàlla daal di koy nangul nag li mu bëggoon bi doom ji ji juddoo di jigéen ah yàlla de man góor laa bëggoon waaye jigéen la de yàlla ne ma gën a xam la- li li mu am waaye nag wan bataxaa rabatal xasana ndekete li li tax mu jox ko jigéen su ko joxoon góor du am ki ko sumbam di jox ki gën ci jamonoom la ko yàlla di jox te kooku du du du am baay ku dul am baay la ko jox kooku su ko joxoon góor du ko am mu jox ko jigéen xasa an dekroo chean baraana lu lu lu la yàlla teg nga xam ne baaxu xanka yi baax na ci yow de loolu ma cheikh basi loolu wax sa sàng rek ca ku ku kuñ doon xatal ci ak kër war yàlla jox lay kër ah ko ay xam nga moom métti na xanaa métti na booba maa ngi tuñ tuñ fu ne xamu fu ma jëm ah waaye xa- ay léegi dafa yaatu nag te jàpp naa di gën a yaatu bàjjana ah ah xam nga sa sayyidatuna Mariama kon yàlla judd na yàlla ne ne ne danaa ko defal meññet wala wala njëmbat gu sell muy Isa alayhi salaam léegi nag su borom nag ne ne Mariama moomu judd di jigéen moo war a jur Isa nan la war a mel ba ba jur Isa yàlla yàlla nettali lañu lañu na nga ko tërbiya tërbiya ak say sayyidina Maryamu yaa Maryamu uqnutii li rabbiki wasjudii warka'i ma'a raaki'iin ah Maryama nag ki ma la bëgg a jox nag faaw nga mel nii jaamul yàlla wasjudi sujjóot yi gannaaw ru ko am na sujjóot ji bul ko firee sujjóot nii da nga dem ci suufenke ya ñooy sujudul xalba ku ku ku mel ne axwaay ka ka ka sëñ Sam Faye da daa wax naanti su su suufenke ba bu tedd ba xanaa mën naa am turu ñëw su su sujudul xa- dul xalba mooy sa xol bi nangul yàlla nga xam ne léegi yow kat. buñ nekkat awagay daa bëgg yàlla xol bi nangoo bu xol bi nangoo cër yi woyof li ñuy wax lefon lefon xam nga lefon mbay ture lefon mooy ni ab karatika bu bu s- noonu cër yi saware loolu wax lefon karatika ni ni cër yi saware nga xam ne bu doon ca chinois yi ak sa ak japonais ya am màggatum juróom-ñaar fukki at mën naa toog ci bank bi nii wëlbatiku taxaw fee loolu mooy lefam cir yi nangu xol baa nangu kon wa- was judi yi war kaa xëy nag dikk nag jaamul yàlla ca nañ ko aadawoo def ànd ak la ña koy def kon ma- maa ji ak am solo maa yéegi soo witee képp yow di jaamu yàlla boo yeexee toqi waaye bu rek koor gi tey fi ñu toll koor gi koor gi métti wut ndax nu ngoloy mu woor bu doon béytu rek pay woor bu yaakaar ne ah waaye gars yi man koor gi moom béy gi koor gi métti na de te waa def ni béy gi kon ah waaye gis naa ñëpp a woor moom. koor koor métti na kon war kax yi maa raak yéen maa ya ma ixwaanun lahum himamun li muy jariñ mooy dañ dañ lay may courage waaye soo wite ci dara su méttee booy yeexee toqi kon digg jigéen ñi de. so so- soxna Jaara mi ñu mi ñuy war a ñëw. soxna asawaaloo moo ko moo ko jur nee naa so- so- soxna asawaaloo moo am waaye so- soxna jaara moom meññet la mariama mii nday jaa am muy meññet isaa di ba tey di meññetu meññet bu ñëwee ci maam jaara soxna asawaaloo ndaanaan nga xam ne tey fi tol soora mii kay soora bu bu dooroon am soxna asawaaloo soxna asawaaloo mooy kan maanaam daa yor daara di jàngale gàmmu gi su su musaa ñëw day sol ab ab jàllaabi jiite njàng mi gaa yi di donga yi di dëbbee mu mu ayeb booba da- da- tagg la ci yonent bi alayhi salaam di wax ay ay jaar jaram siira ibnu mu ayeb mu moo mu mu moo ko ibnu waaw mu ayeb mu moo ko def am na sax ñu- ñu- am na ko ko doon wax naan loolu loolu wérut ndax ndax jàllabi bi daganut góor la déedéet foofu lu am solo ndekete jàllabi ca Mauritanie ca ca Maroc jamonoy bin Badis ak ñooñu ah Ibnu Ashur ba dikkee ne dañoo bëgg jigéen jàng da aada yi ne aada yi Maroc boobu ji- jigéen du jàng ñu ne waaw léegi ko jigéen ak góor jaxasoo nagam ñu ne léegi nañ fexe ba wutal ji- jigéen ñi col goo xamee ne du jigéen te du góore wax nañ ne ci ilimaan yi ci biir jumaa yi ñoo daa ñaw jëlaabi yi yu góor yi motif bi ñu sensé ko ba mu wuute ak bu góor nga xam ne jigéen ju ju ñëw bëgg a jàng si ñoo lay ñawal mbubu léegi nag jëlle bi yooyu moom la soxna astawaala daa sol gis nga sax sun mag ña soxna muumi maraki yim daa sol sax moom aminte daa ko sol mooy doore maraki si doore maraki si la yoo xamante ne yu yu- yu jigéen am na am na Mauritanie Ma- Ma- Maroc lay jógee kon kon kon moom soxna astawaala mel noonu soxna astawaala mi nga xam ne mooy jur soxna si ni nga xamee yaram bu tedd ba bi bi soxna si ñëwee ci kër gi soxna si wàlla joxoon na ko ja- peme booba peme booba moo moo gën a fort booba o- or yombul moom peme nag moom moo topp ci or ci takkaay jigéen caqu peme jaray peme soxna si nag si wàllam toog ab diir nag di seeti ba xam nan la soxna si toogee booba na jigéen daana ndeyam daana ñëw di xool ba xam nu nu mu toogee ba xam bu dee am na lu ñu war a joyante mu mu mu joyante ko soxna si booba ba tey yarab li- lislaam ba ñoom booba eh, kër gi day am buntu por ak buntu kër gi jigéen bu- bu buy ñëw ci kër gi day aw ci buntu buntu buntu por ba maanaam mooy buntu bi nga xam ne jàkkoo la wut ak penc mi ngir la ngir suutura su su soxna si walla daal di war a fasam ñëw ja awe ci buntu buntu pot ba soxna soxna jaara yëg ne mi ngi ñëw mu ne kon léegi na na waaj daal di solu sol takkaay yam ko joxoon so so soxna si walla moom jox nañ ko satala muy jàpp ci buntu ci ci ci mbedd mi ndax boo xam nga da ngay fagg fagg fagg mooy pënd rek noonu mu daal di bi soxna si ne tëll gis ko takkaay soxna si tàng ne ko xam nga ne lii ba ma la ko jox kat sol ko taxutoon daal ne moom day day- day- day dëpp soxna si ne ko déet taxawal moo wax la li xew ba ma ko joxee dafa am fii seen soxna su pël soo xam ne ci moom laa daan sippi soow dama ko joxoon eh, jara yi ne ko si sippal ma ko soow bu jeexee nga nga- ci nga wax ma ko mu jeex ma jo- ma ma jox ko eh, caq ba mu mu ne ma jeex na indil ma ko lépp ne ma kat xam naa ne da ngay liggéeyal yàlla dama bëgg su ëllëgee bu la yàlla fayee nga fay ma son su son su son su akama bu bëgg nga xam waay tur waay ku tedd ngoog ku tedd
mooy ki daan jaxasoo so so soow ma nga nga nga nga nga xam ne moom léegi mu mu ma ko doon sippal soow ba ba mu matee mu delluwaat ko nag njëkk ne ko xam naa ne yow kat da ngay liggéeyal yàlla dama bëgg su ëllëgee bu la fayee nga fay ma kooku kooku am na mu xel de kooku daa doon dama doon dégg tamit ci gars yi ñu ne xam nga moo mooy ndey suñu saak suñu saak mooy ndey suñu saak ah di di daal su doon lay jox naa xanaa maam ñu kon waaw maam maam waaw maam maam maam maam la war doon yàgg na sa sa sa sa sa sa Moussa Ka adi tulli fa waaw jàkkaar naa ko loo loola war a doon maanaa maanaa léegi nag su soxna sàngo nga xam ne soxna astawaalo kon moom yaram ba moo feeñ ci ci soxna si la ca la ca topp sax mooy so soxna soxna jaara bi bi mu bi mu dikkee gone yeeg su guddee mu leen di waxtaanal ci gaa yu baax yi suñu bëccëg mi ngi naan sëñ bi kat moom dalaa digg ci soxna si mu naan bokk na ci aaday gaa yu baax ya taxaw guddi sëñ bi booba xamut xamut du julli maanaam booba ak ak siwul ci julli buñ toogee ba ba- ba guddi day dem taxaw ci jullikaay ba ñii rek bu bañ a def ab jullikaay teg fa teg fa lan aw aw jàkk alaji malik si wala chef de si si bant boobu mu yor def nii loolu mooy aw aw aw jàkk aw jàkk lu lu lu way jariñ mag ñi xokaas bi si tuwaa doon wax ca xoqa jàkk woo da nga koy yor xam nga day neex yor jàkk wi nii fii nga teg sa baram téye ko booy dox ci àll bi di ko sukkootoo soo gisee ak ay dëkk noonu nga mën ko cee falang bu la nit séenee ab saay-saay day jàpp ne da ngaa yor ngànnaay ba mën na laa moytu bu la bu bu la dara bëggoon na fàdd man man aw jàkk ni ni mu def nii ngànnaay la mën nga cee xeex su julli jotee nga samp ko ci sa kanam muy aw jàkk mo- loolu mooy jàkka aw jàkk ma ma ngi jàmbaar lañ man ba fàtte wu ma fa ma tolloon sax ñëw naa ci jàkk rek soxna Asta Walo dem soow ah soow ma sépp ba takkaay wa- wa- waaw kay di di di di waxtaanee guddi gi so soxna Jaara di di waxtaanee mag ñi noonu ba sëñ bi moom di taxaw ca jàkka ja ko- kon loolu kon lu am solo la maanaam léegi jamono ji lu lu portable yi bari bari nangam nangam ngay waxtaan ak gone yi nag am jot portable bi ku- ku mel ne Soda portable bi bu farata jeexee muy wuy ak ak mën naa am groupe euh, nu ñu ko wax dafa yoo xam ne mu nii ba xanaa bu jeexee mën naa am la ca des bëreetut. nga de ko dégg teg nag di xaar mu sone bu sonee sax boo gisee koo xam ne moom am na koy njaay rek la njëriñ wuyu ngay waxtaan ak gone yi nag ca la nga xam ne ko su néew ci gayu bàyyal ak ay jeexital te te doo ko yëg ca kanam lay doon de- dem naa dala muuti dafa def waxtaan ak góor ma seen góor ga muy dàq gone yi ci jàkka ji ma ne ko ma ne ko déet ba leen de de de dara mu tuddee du du du dara mu tuddee kër sëñ kër sëñ kër sëñ soxna bu laa ma ne ko ba leen ya- non, ya- yaakaar naa noonu la de Euh, ma ne ko ba leen man mii su su su ma toggatoon ci ci mag ñi kon lii may waxtaanee du du ma ko man xam nga mag ñi lañ naan gone am nenc la loo bëgg a denc de- dénk ko gone ndax ndax ndax jàpp nañ ne moo fi mujj sëñ Saliou bu Moussa di waxtaane yu xóot yi gone yi tuttànk yi yi lay waxal mag ñi toog fee ci pédagogie pédagogie su gone yi déggee ma ma ñi dégg te foo fekk mag ña da- da- dañoo sànkar mag ñi sànkar nañ sànkar nañ ñoom soxla ñoom ñoom soxlawuñ toog toog naa bi sëñ Saliou njurul man ak sëñ Modou ñu ñu xëy yenn fa ba ngoon takkusaan yi sëñ Saliou ne nekk ci kursi ba noppi ma nga naan sax ah waaw moom de ci suba sax de xanaa ci yor yor nu nu nuyu woon nga ma naa ma jóob xanaa da da nga yaakaar ne dama laa xamut ma ne ko alhamdulilah. sa sëñ bi bi sëñ bi bi bi muy nekk ci kursam ñu toog mag nuuru moom képp mi mi ngi ci njawaan gi ay diw sàngam ak ay gars yi ñi nga ñi nga toog ak ñoom nee jublu gànnaar ñoom di fële seen i waxtaan. sëñ bi ba muy ñaan ba ci ba kii daal ñu nii ma ne ma ne ma ma wokk sëñ Modou ne ko u- ulaa'ikal qawmu xool is yuk si bon la mu di nasaraan yi xoolal ña- ña muy ñaanal yi jiguñu ko xa- xam nga kon sëñ Saliou kon moom maa man mi lay wax la man maa ko ñëw man di am lu may wax ñee ñoom soxla wuñ xam nga xam nga eh, wolof nee na so- eh, so- soxmaat yam na ndox moom dëkkal soxmaat mag ñi duñ tudd xorom ci guddi soxmaat la ñuy wax guddi bëccëg la ñuy wax xorom lu lu- lu tax loolu it lu tax loolu saa buñ ne xorom guddi dañoo am ab néew di wut xorom moo tax guddi dëkku kaw booy sooda mu mu sàggan ba ba amul xorom su su mu toggee reer ba ci guddi gi nag am lu muy togg dem di di jëndi xorom bitig moom dem ñu ko amut
waaw
ah dana ndax ndax xorom saa bu ñu ko tuddee guddi mooy néew la ñuy wax dañ koo gaafal soo bëggee am xorom da nga naan damaa bëggoon soxmaat boo dee soxmaat ñu la am na foofu nañ fa taxaw lu am solo xorom si lu tax ñu ñu- ñu- bu ñu- bu ñu ko tuddee guddi ñu ne néew booba tey dëkk kaw yi bu bu kenn nelawee ci guddi gi ñu war koo fanaanal ba suba bañ nag sangale ñi laa ko sangale ñi bu bu bu buñ bënnee yaram wi mën naa sotti ko ngelaw da ci solo léegi nag dañuy jël xorom ak ak ak naati. pétrole pétrole. seeyal ko noonu pétrole bi diw ko ko buñ ko diwee sangale ñi du ko laal yiy dox. sama bàyyi moom moom ko mas a ne ne wax bis dara dafa jaxle jaxle lu tax ma ñi ñoom. maanaam léegi di jël xorom ak ak ak ak ak ak pétrole bis nag mu wax mu naaw ndax dañuy bañ yooyu dox laal ko nga nga xam ne kon day mel ni kon yaram wi su su su bënnul rek ma mën naa yàgg sax léegi nag ñoom ak ñu dox dëkk yu bënn léegi léegi kon fu fu ma neen foofu fàtte na ko de waaw bu ci kanam sax nga kii de.
alhamdulilah foo nekkoon ci so- so- soxmaan bi xam nga ah néew. néew bi néew bi.
waaw fu- fu- fu- fan laa newoon la ba tudd soxmaan soxna jaara mi jàngal soxna jaara soxna jaara mi jàngal ko waaw
leen waxtaanal bi su waxtaanal ci mag ñu gaa yu yàggee bu baax.
ba ak si xorom si laa bu ma ak si xorom si laa xorom si laa ko di yéen portable bi nga doon wax naan Soda Saliou ak mbooloo.
bu jëfandikoo ci whatsapp ba pare day da ko da ko war a teg di wax ak gone yi.
waaw yéen tàggat ndax jeexital lay doon ca kanam.
waaw
ak seen Saliou ak mbooloo.
waaw suñ saa yu ñaan mbooloo ñëwaat ci xolam.
fàtte naa ko de so- so- soxmaan ji waaw xam naa xam naa ah ko ko ko xamatuma kay sëñ Samb na la daa waxtaanee daa waxtaan mu ne waaw fu ma tolloon waaw waaw waaye kon kon ci ngay waxtaanee ne ne mag ñi seen doxeen wa misaal rek dana dana ko ko wax tey ci xam-xam yi nga xam ne war nañ koo xam misaal tey kat nga toog di di waxtaane di di waxtaane ji jigéen bu amee doom njurukaay la mooy ànd wa wolof di ko wax ab ànd duñ koy def ànd ba saas-faam yi bu soxna amee doom dañ la koy jox ci mbuus ne la ne ne ne la yóbbu ko ndax ànd ji boo dikkee mën ngaa bañ a fekk boo ko fekkee am soore du ko mën na ko yaxal doo xam maanaam awa gay boo ko demee fekk ko moom mën naa mu xam ko mën naa dana- dana xam moom ndax mën naa am diglu na ko ci mag ñi maanaam léegi nag mag ñi ne da ngay gas am am pax am nam pax am nam kan am nam yeer pax moo gën a ndaw kan a gën a yaatu gën a rëy yeer a gën a mag kon pax laa wax pax pax mooy bu bu ñuy def ab xel rek nga gas ko am na nga xam ne da da ne ne da ngay daal di jël na da ngay jël ñetti xobi pofteen def ko nii ba def xobi pofteen fii def de- def fii benn def fii benn maanaam da- day xool mel ni bidigal noonu nga ko- nga ko- nga koy tëralee soo noppee jël ñetti xandeer xandeer mooy tojeeti ndaa nga teg ci nga nga teg ko noonu noonu xob yi mel jël ànd ba teg ci waaye nag doo ko dëpp da nga koy taxawal bunt bi kaw lay féete du féete suuf ma ma mag ñi ne su féete suuf bu dëppoo duutu am doom nga jëlaat ñetti xoy pofteen tegaat ci kaw noonu noonu nga ko rek lañ suuf jëlaat ñetti xandeer tegaat ci kaw noonu nga ko rek angale woon sotti ca ndox ba ba mu niis nga suuf loolu xam- xam-xam la boo xam ne xam-xam yi ma- ma- mag ñaar kon daa mel ne kon tën- tën- tënku ne kon bi ma indee ci ci eh, xanaa soxna Mariam mi ba tey waxaguma ko nag soxna Mariam mi mi mën a wax sur moom ma ma maa ngi doon ñëw ci bi mu ñëwee ci kër gi soxna si wàllu nangam nangam pas-pasam bu tedd bi pas-pasam bi soxna sëñ ba sunu maam ja sëñ ma samba mareema moom medun pende bu yow moom moom ma samba adda ceewo xasi dëgg mi def ci moom way woowu sëñ Musaa Ka wolofal wi maam jaara wi xasi dëggee la wolofal cosaan la mooy xasi dëggee kooku moom daa ne woon ca daara sëñ Moodu Anta Sali xam maam jaara gis ko nee na booba booba ku mar néeg maam jaara fa fa ngay dem ku xiif fa ngay dem ma ñu ne ñu daana rooti rooti ci teen ba ba ba ñëw taxaw taxaw ci ëtt bi dongo yi wër ko mu yenn ko ndox ma ñu ñu naan ko mu dem wuti waat te booba ndox yu yu- yu- ci yombut misaal ndox yombut booba sëy blaat sama bàyyi nee na bis blaat dee woote jumaa ji jëkk ja benn soxna da ko yónnee juróomi dërëm di ko xeeb seblaat ne ndaw la ne ko mënta xeeb fàttewuma bis ma dajeeg moom mu yor am ndox booba ndox ci Tuubaa yombut mu yenni ko jox ma ma naan ba màndi ne ko fàttewuma ko siblaat am na ke- keneen koo xam ne ba tey ngeen fi fi ma ne bala ma ko fàtte se seblaat geneen góor ànd ak sëñ Mbàkke Madina dem fa moom yi ko siyaare ji kooka di ko bës tànk yi ñu ko jiw ba ma fàttewuma guddi ndakaaru ga bëgg a tëddee ca ca ca kaw ba ma ca ba ba ma fa suuf Hmm? jëf kon du du- jëf du du réer borom de mën na mën naa réer kenn kay waaye waaye- waaye moom du du réer borom jëf ju na- metti ak ju ju neex koo ko defal xam na ko mën na koo fakk nag fakk mooy lànk waaye mënu si ko fàtte moom fu fu- fu ma taxawoon sëñ
Déedéet soxna Jaara bu ma saa roon ba ñëw ndongo yi jël ndox mu naan.
ok soxna jaare pas pas ba daa ma sa timis dafa jot suñu mor ànd seli ne jëkk sa sarle ki jëkk mooy ni- noonu nga jàppee rek yaakaar ne dara ngi ci ndekete dara néew ci mu mu mu mu daal ne ana Mariyamu jox ko sarle gi soxna si daal di daw xam nga dafa yëkkamti timis jot bi ngi jot sëñ bi bi war a dem ca jàkka ja mu daal di daw dem ca dem ca teen ba fàtte yóbbu ab ab baaga ko goj mu àgg xool yórutu ab baaga goj te kenn niwu ko mu daal di jëmbeeloo satale gi ci ci biir géej gi ci ci biir nu ñu ko waxati teen ba ba mu ne diw ab teen bu bu ci nit daanoo day xumb ndax ndox mi mi mi daanu bu ne mu ne diw ñëpp yuuxoon ah loolu daal mel ni nit la sëñ Mor ànd seli laaj na Anna Maria mu ñu ne ko mu ñu ne ko mu mu génnoon génn na fi léegi de mu ne mu ne bu dee moom moom day dara du ko dal xoolal yitte ji biñ ko jukkee ci teen bi ànd nag sarla bi foo gis dara da- dara fa ne de neen mënut a jur neen ah ah yàlla nag mën na ko ah kay yoo ju ba xëy mi la mayti su ko neexee loolu exception la kon soxna jaare kon pas pas bàngoog nga xam ne soxna jaare loolu lépp fo- foo gis nag ku ñuy xeeb ak a fe- ak a fegg feggal kooku la yàlla faral foofu it foofu it dara la doon naa ko waxtaanee dé- démb comme jigéen ñi may leen ab rotaankat ro- ro- rotaankat mooy kan ku ñëw ci kër gi jàpp ne moom kër gi du mbokkub sëñ bi ab rotaankat foo ko fekk mooy yóbbu ndox ma ndax ro- ro- rotaankat bi day jàpp ne moom fikku fi am nawleem sang la fa fekk ñi nga xam ne ñoom du du duñu rotaankat bu dee sooda moom koy daan oh kii moom sama kii la ñoo bokk màngam bii laa dëkk màngam mu dëkk fee teew bu dikkee naan yii man de man moom de yàlla moom man bokkuma bokkuma xoolal seen laat daa mos a ñëw suñu fàllu toogee xalifa daa jël li ñu amoon ca ca ca kii ba ca miras ma dèjà tibb bu ñëw suñu fàllu jox ko ne ko nun kat yéen moom mbàkkee da ngeen a bokk sëñ bi noonu nag bokku sëñ bi sëñ fa sëñ Abdou Lahat sëñ Saliou sëñ sëñ Abdou Samad sëñ Sonia bu sëñ Laat moo dem moom jël xaalis ba jox ko si si si fàllu ne ko nuñ ne ko nuñ bokk ci sëñ bi de yéen moom da ngeen a bokk moom dégg nga mbusoo bi nga tax mbusoo bi gi lay wax sëñ Baate muus ah muus faggu xam nga lo- lo- loolu baatu faggum ngoo sëñ Blaat ba ñu demee euh, am na ci ndaje mi ñu daal dajee ca Ndar ñu ne fa ba guddi genn góor mag ma mën naa ba ci dëkk dëkk genn góor mu woo sëñ Blaat ne ko jox ma mbubb ma wax la dara mu jox ko mbubb mu ne ko ndaje moomu ngeen jëm bu ngeen toogee ba sëñ Fallu yeewee yow toogal rek mu dem sëñ Fallu ngan gi waaw ah kon dangaa kon ma ngi dem ci taleer su waat mu toog rek ñëpp ñaan lu kon de xanaa am nga de bu suba toog rek ba mu guddi noonu tubaab bi ñëw ne ko dañoo bëgg nga wax ñu kañ moo lay wóotu sa sa sa sa ginnaaw mu ne ko Abdou Lahad ñu ne ko ñu ne ko sëñ sëñ Bachir mu ne ko xam na ma xam xam na xam na ne day dem di nga de dégg nga góor ga te borom xam baax a baax ma ko ma mën na ba ci dëkk de foo foofu ma ma ma ma firi ko sëñ Baara bi muy làqu dénk di dénkaane njabootam sëñ sëñ Bachir sëñ Bachir mag ñeen ne ko nag Modou Moussa nag mu mu mu ne du du ma ko raw. sëñ bi ma sëñ Moussa la bëgg lépp mu dénk kër gi sëñ Bachir ndax xam ne sëñ Bachir fii mujj sëñ Moussa. wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh.